anytime, Joe. na ngeen ko gàddoo seen ñaareelu fanu campagne bi ci li nga xamante ni moom mooy élection yi jëm ki nga xamante ni moom mooy Zahra Iyane Thiam nekk candidat bu Benno Bokk Yaakaar ca fa nga xamante ni mooy Sicap Liberté daal di koy amal ci dimanche bi ni mu ko amalee nag mooy dem ci kër yi waxtaan ak ñoom ak li nga xamante ni moom mooy programme yi mu bëgg a teg ca fa nga xamante ni moom mooy commune boobu mu mel ne nag kër yi dugg yëpp ñëpp dalal nañ ko daal di am yaakaar ci moom waaye tamit sàkku nañ ci moom daal di jàppale ci li nga xamante ni moom mooy boobu mu dellu na meloon ndax léegi li nga xamante ni moom mooy Sicap Liberté daanaka kenn xàmmeetu ko ak xar bi nga xamante amoon na ko mu mel ne visite de yooyu nag mu daal di koy wóyal ba ci ngoon gi laata muy dalal ki nga xamante moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr jiite Ndakaaru ñu daal di ànd dem ca meeting ba nga xamante moom mooy xëccoo fa nga xamante moom mooy dërkale ñoom ñëpp nag di booloo wane seen liggéey bi nga xamante ni lañ xamante ni fa nga nekk nga daal di ay kàddu jëmle ko ci bilan bis bi nga xamante ne def na ko ak li nga xamante ni xalaat na ko ci li ko askan wi ñaax rawatina ci li nga xamante ni moom mooy seen bëgg-bëgg ci dëkkuwaay bii nga xamante ni moom mooy bu Sicap Liberté dellu mel na meloon. waaw tey la ñaareelu fan ci campagne bi démb mu doon journée boo xam ne c'était une journée solennelle d'ouverture mais tey vraiment lañu wàcc ci terrain bi. dem ci kër yi ñu ngi commencé diggante liberté 2 ak liberté 3 dem euh, fekki askan wi si biir kër yi pour laaj leen aussi seen impression ci élection yi ñu dëgmal ak aussi recueillir ban finalité la ñu am ci action yi nga xam ne ñun waa benn Bokk Yaakaar Sicap Liberté yàgg nañ ko def ci commune bi mais sant nañ yàlla ndax amul benn kër boo xam ne dugg nañ fa te dégguñu fa lu dalal suñu xel kon dañuy jàpp ne nous sommes bien partis et dinañ continuer ce programme de proximité là pour toujours partager avec no population li nga xam ne moom leen leen yéene ci wàllu programme mais également euh, recueillir seen suffrage li ñu gën a neex nag mooy c'est vrai que tey la ñu accueillir le candidat de la ville Ablaye Diouf Sarr mais population Sicap bi ci seen bopp comprendre nañ que ne les opportunités que les villes apportent pour leur commune notamment la ville de Dakar dafa war a nekk loo xam ne day ànd kon maa ngi demander toutes les populations des 19 communes du département de Dakar non seulement ñu voté liste commune Benno Bokk Yaakaar mais également ñu voté liste ville Benno Bokk Yaakaar Dakar te nga xam ne le ministre Abdoulaye Diouf Sarr moo ko jiite parce que aujourd'hui Dakar est la capitale te tey Dakar dafa concentrer li ëpp ci population bi mais surtout dafa concentrer li ëpp ci acteurs économique bi kon dafa war a tax ñu xool beneen paradigme de développement boo xam ne beneen impulsion boo xam ne dinañ ko jox la ville de Dakar mais également beneen taxawaay parce que bis gis nañ ne ci lu bëri ci instabilité ci réew mi dafay concentré wu ci biir Dakar parce que euh, parti politique yi fii lañu ñu ëppee et parti politique yi acteurs politiques yi xooluñu Dakar bëtu capital mais dañ ko xoolee bëtu terrain boo xam ne dañ fay def l'expression euh, de de xëccoo ak expression ou bataille euh, contre l'État central. Aujourd'hui, j'appelle les populations des 19 communes à la différence ñu xam lan moo gën ci ñoom ñu xam lan moo war a ànd ngir euh, développement bi ñu bëgg moo tax loolu aussi dinañ ci insister le ministre Abdoulaye Diouf Sarr dina fi dellu si waat suba gën a wàccaat ci terrain bi gën a expliquer Dakarois yi ak Dakarois yi sans engagement yi nga xam ne am na ko ñu tënk ko ci di axe te axe bi ci ëpp solo mooy comment structurer et accompagner le secteur informel jëmmal loolu moo tax ñu ne nous voulons faire de Sicap Liberté une commune de référence def Sicap Liberté royukaay parce que liberté boo doon wax Alébourguiba bàyyi wax liberté c'était un peu la cité des fonctionnaires ñu fi nekkoon suñu borom mayoon na leen mais ñooñu ñëpp daanaka nekkatuñ ñu bëri wàcc nañ liggéey ñeen ñi mag nañ mënatuñ kon euh, loolu amoon ci biir njabooti Sicap lu bari daf ci wàññeeku moo tax kër gu ñu dugg tey ñu ne ñu dañu bëgg Sicap mel na mu meloon dañu bëgg Sicap dellu fa mu dellu woon mais loolu neex na mais li gën a neex mooy waa Sicap jàpp ne pour Sicap dellu fa mu nekkoon bennoo Bokk Yaakaar Sicap Liberté moo ko mën a def ñoom am nañu yaakaar ci suñu programme am nañu yaakaar ci suñu taxawaay kon la grand défi mooy ñu bañ a décevoir suñu ay population te jàpp naa ne duñ leen décevoir parce que ñun fii la ñu am nañu feneen fu dul Sicap Liberté duñu immigré duñu tuxu duñu dem beneen dëkk benn ñaar kenn du ñëw defaral ñu Sicap Sicap ñun doomu Sicap ñoo koy defar comme ñun doomu Sicap ñoo koy defar moo tax ñun ñëpp mobiliser nañ taxaw ku jóg pour defar Sicap dinañ ànd ak yow mais ku jóg pour jël Sicap jëriñoo ko dañuy taxaw te moo tax ñu taxaw parce que jàpp nañ ne population yi ba léegi am na lu ñuy demande te matale wuñ ko te fas yeneen nañ ko matale. Euh, waaw xam nga wax nga ko. 2014 le 29 juin 2014 dama ñëwoon nekk candidat fii ci Sicap Liberté mais fépp fu ma jaar dañ ma naan sa campagne rafet na sa way bi neex na mais buñ la voter parce que gisuñu sa suñu bopp ci yan action nga def biir Sicap ma dégg loolu jóge ci élection yooyu gën a laxasaayu dugg ci biir Sicap Liberté di déglu askan soxla askan bi di jëf ci soxla askan bi juróomi at a jour pour jour ñu ngi biir commune Sicap di liggéey aux côtés des populations et aujourd'hui les population nous le rendent bien parce que xam nañ ne xam nañ seen soxla taxaw nañ ci seen soxla mais surtout ministre bi nga xam ne dab nañu au cours de notre carrière ça fait trois ans que ñu ngi euh, diriger département ministériel boo xam ne euh, ci secteur bu am solo muy secteur de l'économie sociale et solidaire et l'économie sociale et solidaire du lenn du képp ku nekk ci réew mi nga mën a bokk ci liy tabax koomu réew loolu def nañ ko wërale ko Sénégal def nañ ko biir Sicap moo tax population Sicap jàpp ne buñ ñu confier mairie bi li nga xam ne loolu la collectivité territoriale war a def parce que il faut rappeler que état bi politique de proximité bi muy def ak compétence yu mel ni santé yu mel ni éducation yu mel ni sport yu mel ni culture yu mel ni environnement yooyu daf ko def mu nekk ay compétence transférées kon tey compétence yooyu nga xam ne état bi day jaarale li mu war a def ci population ak ressources yi ci collectivité territoriale yi population Sicap ñoo ne yow mi nga xam ne gis nañ sa taxawaay ci ba nga nekkee ministre yaa ñu doy pour mottali loolu indi ko ci biir commune bi ndax wóor nañu ne bu loolu amee dinañu gis suñu bopp ci commune bi kon ñii jàpp ne nekk nga ministre nekk nga maire loolu waxu politicien la parce que ku jàppoon ba nga nekkee maire def nga dara kon population yi duñu seeti feneen population Sicap ñoo seeti feneen ñoom ñoo ñu tànn te danañ taxaw incha allah.